Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Merci encore de la confiance renouvelée. Merci Louis du like, merci Louis d'abonner. Merci également du bail ici, du commentaire. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Beaucoup Sénégalais. Ok, gars. Nous waxtaan un peu si li nga xam moom moo di polémique bi daw autour de FSF mooy maanaam fédération sénégalaise de football ak ak ak ak Puma dafa moment yoo xam ni euh, il faut que ñu objectif maanaam bu ñu topp trop subjectivité nekk ni ñoo xam dañuy wax li nga xam moom moo nga xam ne moom lañ mën a su nekkee ñu subjectif comme man je dis que ni Sadio Mané c' est le meilleur joueur du monde et je le crois jusqu'à maintenant pour man ballon d'or mondial c' est Sadio Mané le crois plus maintenant après match bi nga xam ni moom laa gis l' autre jour mais bon foofu man mën naa nekk sujet parce que chacun peut avoir li nga xam ni moom moo di benn choix ne diw moom a gënal kii ne Benzema kii ne Vinicius kii ne whatever comme ñoom ñu koy defee mais fii on doit être objectif la moo tax parce que gars yi brand la boo xam ne day placer ay produits am di ko jaay léegi tey jii nii Puma bu defee benn collaboration ak benn équipe nationale wala mu def collaboration ak benn joueur wala mu def collaboration ak qui que ce soit dafa nekk benn nit boo xam ne day xool nan lay placer produit am pour faire plus de chiffre d'affaires moo maanaam xool nu muy jaayee produit am loolu mooy li nga xam ne moom moo di affaire de brand. moo tax ma am temps nag jël li nga xam moom mooy sama temps yàlla suturaal ma ba ma seetaan beaucoup de réactions beaucoup de gens sax yi nga xam ni sont des chroniqueurs sportifs man nag li nga xam ne moom laay ñëw xam nga exemple laa jox mooy ñi nga xam gën a suivre ci chronique sportive yi muy benn Stan xam nga muy benn e-sportive yi ah muy benn Grégoire Omnisport ñoon ñooñu laay gën a suivre quoi parce que ñoom ñooy ñi ñi nga xam ne ñoom ñooy wane seen bopp wala ñeen ñoo yor benn voix boo xam ne ils disent ce qui se passe et ils mais problème bi mooy genre situation yi bu amee il faut ñu génnee li nga xam ne moom mooy les résultats wala lii moo xew wala lii mooy xew ngeen commencé expliquer gars yi lan mooy problème ak affaire de maillot yi j'ai fait mes recherches bi que nag si côté brand lañ nekk et je me sens nag euh, libre d'en parler parce que yàgg naa fi def ay vidéo xam ne dama leen wan nga xam moom moo di brand yi comme Louis Vuitton wan li nga xam moom moo benn vidéo boo xam ne c'est très intéressant tey jii ñi ñëw na en actualité Euh, euh, Puma vs Adidas mu nekk ñaari frères yooyu noonu Adolphe ak ki nga xam ne moom moo di Rudolf Dassler ñi nga xam ne Allemagne lañ nekk ñoom ñoo am benn compétition depuis xaw ma depuis Mathusalem depuis mu nekk ba léegi lan moo ko waral benn jigéen mooy maanaam jabaru Adolphe moo trahir ki nga xam ne moom moo di Rudolf moo jabaru Adolphe moo sëy ak Rudolf trahir nag bu trahison boobu noonu moom moo tax tey jii ni compétition boobu noonu am. mais vu que ne Adidas ne fait rien si li nga xam moom mooy affaire bi mais juste pour ngeen dem seetaan genre vidéo parce que dina leen aider un peu ngeen comprendre business bi gars yi nan demee bu njëkk ba dafay amoon li nga xam ne moom la ñu woowee seulement sport wear moo maanaam sport bi tey jii nii man su ma jëndoon benn maillot maanaam man ma nekk joueur mun ci porteur mënu ma woon jënd maillot maillot c'était seulement réservé ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di kii football exemple nawetaanu Sénégal ñun fan la ñu toll si nawetaan mooy maanaam ASC bi day am ay maillot pour nga mën a sol maillot bi ah wala supporter mënul sol maillot supporter pour mu sol maillot bi il faut mu sol maillot yoo xam ni maillot yàgg yàgg yàgg yàgg la pour mën a ñëw xam nga assister si nga xam ni moom moo di entraînement wala genre maillot yàgg yàgg yi sax day dem ba jóge fa nga xam ni moom moo di si équipe bu mag bi dem fa nga xam moo di cadet yi wala kon ça veut ni bu njëkk ba football noonu la meloon ñu dem au fur et à mesure benn nit gis ni carrément ne tey jii nii y a des yoo xam ne dañ daan jël ay yére mooy maanaam t-shirt bind ci ak feutre turu joueur bi nga xam ne moom lañ doon suivre ñu koy sol di dem stade et c' est brand yi ne ah mais pourtant mën nañ defar ay maillot yoo xam ne c' est spécialement pour ñu yoo xam ne faux type la pour ñi nga xam ñoom ñoo di supporters yi au fur et à ñu dem ñu defar li nga xam moom moo di maillot yi nga xam moom moo di supporters yi ñu dem bay defar blouson yi aussi pour supporters yi ñu dem ba benn instant mu nekk tekkul benn affaire boo xam ne seulement sportwear la mais quand on parle de streetwear mooy benn affaire boo xam nit ki mën na koo am rapprochement moom moo di Sadio Mané sans pour autant ma mën wala sans pourtant sport intéressé ma ko sol noonu rek juste pour mode comme tey jii boo leen xoolee beaucoup de drilleur ñu ngi jël li nga xam ne moom moo di yére ay Manchester yére ay Paris yére ay lii di ko sol mais est-ce que vous avez vu quelqu'un ko xam ni mu ngi woy mu nekk international mu sol li nga xam ni moom moo di benn maillot Sénégal wala benn maillot africain xanaa mu nekk koo xam ne dëkkam foofu la comme tey jii nii benn Youssou Ndour bu demee France mën na sol wala Wally Seck war a mën na sol li nga moom a mën a may doole équipe la nekk mais tey jii rarement nga gis ay drilleur yoo xam dañuy sol maillot équipe nationale la plupart weesoo nag loolu mooy li nga xam ne moom la sénégalais yi war a concentré wu xool ndax Puma daf ñu manque de respect wala ñu tollaguñu fi nga xam ne Puma daf ñu war a respecté tey jii nii un sénégalais bu fekkoon dafa doon dem si stores Puma yi wala mu doon dem si online Puma yi di jënd maillot originalu Sénégal j'en suis sûr que ni Puma dina gis ni carrément chiffre d'affaires yaa ngi yéeg et en ce moment là que benn Augustin Senghor mën wala benn fédération sénégalaise jug dem fa nga xam ni moom moo di Puma ne leen ñun nii la ñu bëggee suñu maillot maillot nii lañ ko bëgg a defee flocage nii lañ si bëgg a def te sponsor yi ngeen si mën a yokk parce que en ce moment là sénégalais mooy nekk si li nga xam ni moom moo di face médaille bi gën a baax moom mooy nekk en position boo xam ni moom mooy joxe li nga xam ni moom moo di lecture de temps kii bi ni ñu koy waxee sax euh, marché bi mais en ce moment dans un pays boo xam ni benn faux maillot la ñëpp di jënd tey jii nii piment bu génnee maillot Sénégal mënul fexe ba am benn chiffre d'affaires bu extraordinaire benn ñaar. sénégalais yëpp kenn du dem fa nga xam moom moo di store yi ak online di fa jënd maillot peu de personnes ñoo koy def la majeure partie ci ñi nga xam ñoom ñoo nekk si diaspora mais je dis peu bu nekkee pour cent pour cent benn nekk même pas cinq pour cent dem jënd maillot original ñëpp dañuy dem jënd ay maillot diiro wala ñuy jaay si marché Colobane wala genre yu doon en ce moment là ñi nga xam ne yéenay def loolu yéen a mën a toog tey bëgg ne tey Puma respecté wu leen Puma nii la waroon defee maillot wala nii la mënoon defee ça doit pas vous surprendre bu fekkee Augustin Senghor nee na moom xamuloon sax affaire de maillot parce que Puma lenn rek la ko mën a wax man signé naa la lii laa signé temps record bi laa signé yow dinaa la fournir li nga xam ni moom moo di ay mayo dinaa la jàppale li nga xam ni moom moo di économiquement mais foog nga yem yow décision boo xam ni mayo nan la war a mel designer yi nga xam ni moom laa war a jël waree fa yow loolu amoo sax kàddu sax doo si sax xalaat maanaam yow da toog rek mayo di ñëw équipement yi di ñëw c'est ça que vous avez vu si nga xam ni moom moo di premier match contre Bénin sénégalais yi sol mayo bii nii quand tu vois un Famara xaw ma ndax Puma moo ko def wala Puma def ko et j'en suis sûr que ni Puma bu ko defoon leen Puma instant yi nii respecté wu que sénégalais si boppam ñoom ñoo nekku ñi nga xam ne ñoom ñooy accompagner li nga xam moom moo di économie nationale bi c'est comme tey jii nii un ñu si nga xam ni mën nañu streamer li nga xam moom moo di samay son wala mën nañ ko jënd online pour mun a am li nga xam ni moom moo di disque d'or bi du ma génnee album bi là Wally Seck a parfaitement raison parce que sénégalais bi amul habitude jënd mais noonu la amee habitude prétendre quand vous parlez avec Puma Puma du leen sax calculer xoolu leen sax mais tey jii Puma buy defal maillot benn France wala Puma buy defal maillot benn Italie j'en suis sûr que dina leen toppatoo dina leen jox de bonne qualité parce que néanmoins les supporters dañuy jënd li nga xam ni moom moo di maillot Puma yi c'est ça la pure vérité lii mooy dëgg bi. léegi nag bu loolu weesoo si li nga xam ne mu leen di leer ni maillot yi nii lay mel ba keroog ñuy dem coupe du monde tant que sénégalais itam en ah, xanaa en temps record six mois yi Puma gisul ni carrément gars yi dem nañ jënd li nga xam ne moom moo di beaucoup de maillot et c'est là que fédération a dem wax ni vu a beaucoup d'achat chiffre d'achat lii ak lii ak lii ak lii la il est nag maillot ngeen jox ñu maillot yoo xam ne day Sénégal bi nga xam ne moom moo di champion d'Afrique maa ngi ñàkk sax ndax tàngaay fii dafa tànk loolu mooy li nga xam moom moo di globalité ñu dem si li nga xam ni moom moo di deuxième point man je me dis que ni l' affaire topp maillot est la pure distraction xam ni sénégalais war nañ si wu parce que l' affaire n' est pas le maillot tey di nga gis ay joueurs yoo xam ñoo gën a élégant wala des équipes yoo xam ñoo gën a élégant si li nga xam moom moo di en terme de maillot qualité ah, ñëpp di jënd li nga xam moom moo di seen maillot mais bu ñu demee fa nga xam moom moo di si compétition il n'y fout rien comme l' mu ngi nii maintenant Puma jóge na si moom Adidas jël na ko parce que lan Puma daf ko bàyyi parce que l'Italie ne vend pas amatul succès bi nga xam ne moom moo taxoon mu jël ko lii mooy la pire vérité lii rek moo fi nekk. léegi nag mayo yi bu leen rappelé woo gars yi en 2002 mayo yan mayo la yan mayo la Cameroun joué ñëpp jàpp naan seen mayo yi ñaaw yi seen mayo yi daggit yooyu noonu. Cameroun soloon na fi ay maye xaw ma seere yooyu noonu mais teewul ils ont produit le football gagné li nga xam ni moom moo di coupe bi en 2002 bi ñuy dagg seen loxo yi contre le Sénégal mais est-ce que maye bu rafet tax na nga jël coupe est-ce que maillot bu rafet tax na nga bañ a jël coupe est-ce que maillot bu ñaaw bi nii tax na sénégalais yi bu ñu duggee si biir terrain du ñu football parce que ils se sentent je sais pas euh, visés wala ils se sentent minimisés non je crois pas parce que c'est pas l'important mooy bal bi baax du maillot bi de bal bi baax.

moo di piratage chinois yi nga xam ne ñoom ñoo dàq defar lu foofu chinois yi ñoom sax bu ñu dem di jënd Louis Vuitton original Louis Vuitton la ñuy jënd bu ñu dem jënd si oto bi duñ jënd ay oto yu ñàkk fayda yi nii léegi ñoom ñooy dafa mel ni benn nit boo xam ne day drogue day jaay drogue kiy jaay drogue nit ñi lay jox ñuy drogué wu xaalis boobu ñu koy jox moom mu jëm di ko dundee une belle vie loolu la chinois yi def kon tey jii nii Sénégal yéen a ngi jël li nga xam ne moom moo di patriotisme sànni ko fële jënd leen maillot boo leen bëggee Sénégal fi ma respecté mais jënd leen maillot bi il faut ñuy wax ne dëgg et ça je m'attendais ça de mes chroniqueurs benn benn e-sport TV je m'attendais de ça de benn Stan ah outsider je m'attendais de ça de Grégoire homme du sport yéen lii ngeen war a wax sénégalais yi lii mooy li nga xam ne moom moo di dëgg bi mais pas topp ñoom seen mouvance maillot yi dafa ñaaw maillot dafa ñaaw maillot yi dafa ñaaw maillot yi la ñu mérité yi la ñu mérité du joueurs yi ñooy jaay y a beaucoup d'influenceurs yoo xam ñu ngi am ay 2 millions de personnes ñooy boo leen joxee produit ñu jaay ko ko jaay. am bu ñu naree jaay li nga xam moom moo di cent personnes ñaar nit ñoo si jënd parce que ñi si des yëpp ñu leen ndax loolu dafa am lu tax gars yi di suivre loolu mooy li nga xam ni moom moo di dil bi gars en tout cas gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi j'espère que nag am na benn leeral boo xam jox naa leen ko on doit être conscient dafa moment boo xam dañuy subjectif moment def li nga xam moom moo di business benn brand multinational la te ji li muy xool mooy naka lay def ba gën a yokk chiffre d'affaires et si le Sénégal n'est pas capable de donner li nga xam moom moo di chiffre d'affaires boo xam ne c'est c'est cohérent waa ji wax dëgg faa du leen respecté ba leen defal ay mayo lu mu leen di wax rek mooy lii tey lii laa pense jox leen lii la bu fekkee Sénégal yi naan ah diw pourtant piment waroon na ñëw Sénégal jël quelque euh, ni ñu koy xatee sax jël quelque styliste pour ñu wan leen xam nga benn genre prototype no piment du ko def parce que mérité wala ko encore pour ñoom piment du ko def danaa tey ngeen jël li nga xam ne moom moo nii benn marque officielle bu Sénégal ngeen defee ko benn marque biir dëkk Sénégal ñu créer ko ñu accompagner ñu proposer de bons maillots sénégalais yi jël maillot dem fubalee ko loolu rek moo nekk mais piment ñëw jamono ñu toll naan day woo ay styliste du ko mën a def quoi des fois loolu moo nekkoon vidéo yu gars yi joxante daje si beneen vidéo King West la woon ak yéen wasalaam. solo wuñu clash bu nekk ci seeni kanam wu jële ñuy def ku fégal sama morom aye eh. dama war a sos di noos di bos bu toog ci foos sol coos yor onze di mbaas sa MC maa koy bëréew da mel ni rappeur yëpp a tële mu mel ni ndigal fépp la mëne bari dolli fii ba fële maa ngi seeni tàddi lu ma neex laaj dële